am na ñaanal sama doom Wally Ballago Seck. maar waaw ndeysaan d' accord am na solo ñu koy nuyu baax a baax maar euh, maman fi may njëkkee ñu gis euh, euh, discours Macky Sall bi barki démb bala maa ñëw ci discours bi mu mel ni avant discours bi yenn sénégalais yu bari dañoo génnoon di xalab ñi nga xamante ne ñooy jege ñaale Macky Sall ba keroog boo xoolee bi mu dajalee maire yi sax am na ay jigéen yu jug naan ko ñi ñi la jege gestu wuñ askan bi jege wuñ askan bi naka nga jàngatee loolu. waaw mooy li may wax rek xam nga ñenn saa yi ñu ne buur aayul dag yaa aay. Mhm. nit sa kër sax boo fa yoree am na ñu ñu la jàppale ci li nga bëgg ci sa kër am na ñu la jàppalewul yi ñaari bët la am benn gémmañ la am ñaari paxu bakkan la am ñaari loxo la am. mënut a mhm. dajale fépp. Mhm. bu geestoo dootu xam ne ci kanamam bu xoolee ci kanamam du xam ne ci ginnaaw amul ay bëti ginnaaw. li mu mën mooy liggéey am ñu ko jàppale ku yàqal ma ki yàqaloo ma ki sa bopp nga yàqal. Mhm. ndax ci li Macky di doxle ci ngay doxle mhm. Macky bu doon moom moom rek la réew mi du mel nii mais réew faaw mu am ñu ko bokk. Mhm. te munta ñàkk waaye njagam jox na Sénégalais yi li ñu bëggoon ak li ñu doon laaj ak li nga xam ne def na ko ci grandeur waaye def na ko ci njiit waaye def na ko ci personalité mooy delloo na askan wi li ñu doon xaar ci moom. mooy que ne man de ndegam réew mi su ma bokkee mu tàq. su ma bokkee mu boy su ma bokkee ñu manqué respect sénégalais yi ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ñëpp ñi nga xat xaaral ma delloo lii mu ne leen moom du bokk 2024 du bokk. Mm-hmm. lii da la Macky wax 2024 man de bokkuma. Mm-hmm. waaye réew mi du ma ko bàyyee kenn bokkuma waaye réew mi dinaa fexe ba mu am jàmm. ku mm-hmm. koy jiite yi dina ko jiite ci jàmm ak salaam. njuñu la rek. discours bi xaaroon nga ko. waaw xaar naa ko. parce que boo dee seet 2020 dama ni woon Macky Sall day gagné troisième mandat mooy li gars yi di dagg ay ñoom télé yi doog ubbi télé yu ñàkk fayda yooyu nga xam ne ñi doog a maa ngi gis ñuy def sama troisième mandat boobu ah dama ko xool image bi ma def ci année bi 2022 ak ni ça deux mais vidéo boobu kon kon 2020 la boobu boobu yàgg na xam nga 2022 laa dem màkk. waaw boobaak tey mooy vidéo yu ma def kol gi rek. waaw nañ ko seetaan. boobu yàgg na barke yeneen bi yàgg na man vidéo yi ma defaat rek euh, le 11 mars bi may waaj ma ak Cheikh Sarr seen TV. Mhm. boobu rek yàggul boobu rek 11 mars la te boobu nee naa leen réew mi ku koy gañe feeñagul ñii di bëlti bëlti ñoom duñ bokk ci réew mi. ba lan moo tax gaa yi dem jëli vidéo yi indiwaat. damaa xew nag sama lépp dañuy denc damaa xew waaye ndox ba mu dee vidéo kese rek duñ ma génneel la neen de <laughs> lu ñaaw mukk mhm. ah bi Sénégal sax li ma Sall def nii troisième mandat bu mu gagné la. troisième mandat bu mu gagné la ndax daf ko def ak discipline def ko ak fierté xaaru ba egg ci dugal ay voix du xaaru ba dem di di carte xaaru ba dem ci campagne dafa teel a génn ndax réew mi ni mu jaxasoowee man mii sax barke yonent yàlla Mouhamed su ndam nekkoon ci man ma war koo gañal Macky dinaa ko ni Macky rocc sa loxo. ndax jàmmi réew mi laa bëgg. Mhm. xool ma fa ni ni ma soulagé. bu réew mi amee problème damay xat damay jeex damay ñuul damay ñaaw. Mhm. ah. d'accord bi nga gisee sa vidéo yi gars yi yóbbu la VAR. dama am ferte nag damaa jékki-jékki rek gis ko daal laa laay la laa nekk te man waxoon naa fi moom <laughs> amoon na fi ah? vidéo bi dafa àtte woon naa ko ma jëlaat vidéo man moom laa dugal statut. vidéo bi moom laa dugal statut. Hmm. waaw moom laa dugal statut ci réew mi laa bokk. Hmm. maa objet doon vaillante du peuple vaillante nationale pourquoi pas man en tant que sénégalais duñ ma def la ñuy def ñëpp waaye ci beneen facette. ci beneen facette nag wax dëgg yàlla boobu 2000 bi dama leen di fàttali rek yéen ñi koy dugal da ngeen a juum boobu yàgg na seet leen yu bees yi ngeen dagg ci ngeen dugal bi ma nekkee ajaratu bi ma commencé muuru boobu temps yi ma xam ne su may wax la damay sumeeku di përiyee mm-hmm. Mm-hmm. da ngeen a mu mel ni vidéo yi sax ndax jàppoon nii ñenn ci sénégalais yi comme yow ku la xam-xam ah, ñenn ci sa digganteeg waykat yi ko ci mel ni Wally extra ndax jàppoon ni yeneen gars yi tamit dañ fa jaaraale rek ni xaaral ça fait l'occasion ñu exploiter lii. non man ñi contre Wally dañ ma bëgg samay fans lañ ñeme wuñ ma nag. pour réew mi nii sama yëf duñ ci xuus cent pour cent pour cent de. parce que ay xale yu ndaw rek a ci waxtaan bu doon mag a ko waxtaan damay wàcc sama sama bundu kër. pënk ba nga nooy ma duggaat sama oto ñu <laughs> pour man nii. Mm-hmm. non non. Mm-hmm. yaa ngi wax ak ku doy waar nag. Mm-hmm. dama am respect nag ci nit ñi du ma saaga du wax wax bu ñaaw du ma wax wax bu débordé. parce que dama respecté Sénégalais yi. dama bokk ci citoyen yi nga xam ne ci réew mi dama marqué sama emprunture. parce que ku mille femmes nekk ci sa ginnaaw. waroo def faay. moo tax lu bëri duma ko def mais loolu garaawul quoi. parce que lu paase la. ba tey damay des ci discours président boobu bi mu waxee yenn sénégalais yu bëri tamit xaw a am njàqare que ni gis nañ ko fi mel ni Ouattara génnoon na ni moom du bokk ci candidat yi mu jékki-jékki ñëwaat ni day bokk sénégalais yu bëri naan est-ce que nekkul président da koy wax nii rek mais bientôt day bokkaat. non moo tax dama ne ñiy vaar dañoo teel a vaar. Mhm. ñiy vaar dañoo teel a vaar. Mhm. ndax li tax ñu teel a vaar mooy dañoo doon bàyyi ba 2024 jàll. Mhm. parce que pour ah waxuma ko nag la waaye xaw ma nag 2024 élection dina am wala du am <laughs> da ngeen teel a vaar mënuñ ngeen xaar ba si kanam. ngeen mhm. yàqamti ngeen doog xaar ba si kanam ngeen doog a vaar. waaw 2021 2021 2021 2020 maa ni woon troisième mandat fa la force. man maa ko waxoon soxna Aïda Saliou mais di ngeen a teel a vaar da ngeen waroon bàyyi ba 2024 jàll ba pare da ngeen a gaaw de très attention. mais mais gars yi li leen li leen li leen jaaxal maam ci sa ci sa ci sa wax boobu noonu vidéo bi jàll ñëpp di ci jot maam maam bi nga doon waxee mu mel ni dafa am loo gis dafa am loo seetoon ba am loo gis li nga gisoon noonu lan la. ba Macky Sall dañoo weñ loxoom rek mu rocci ku doon dem la te ba léegi génnu fa ndax 2024 la élection te 2024 jotagul dañoo teel a vaar dani bokkuma ci 2024. waaye ngu Sénégal du ma nangu ku ko yàq nañu defaat yeneen installation defaat yeneen aar muccal dëkk bi jàpp dëkk bi mais loolu 2020 la mais ku xool samay vidéo 2023 2022 image yaa ngi fii internet tuddul internet internet denc la tudd. Mm-hmm. te nag du ma toog un mois te defuma vidéo mais nañ dem dégluwaat vidéo yi maa ni woon réew mi ay surprise yu neex a fi am. ñii falu ci réew mi ak ñii jël réew mi ñu xeexuñu 2020 maa génnoon ne ñi nga xam ne ñoo bokk benn coalition ñëpp dañuy tasaaroo. Mm-hmm. ànd boobu day tas du dem. mais maa génnoon 2020 ne mairie Sénégal yëpp la ñuy raxas mairie yu ne nouveau maire moo fay nekk. Mm-hmm. mais nan dem vaar bu ñu seet benn kii rek def ko vaar man nañ ma vaar nañ ubbi vidéo yi delluwaat ci ginnaaw teg ma def ma bilan seet li ma leen wax man soxnaay de Saliou. ñu defaat bilan defaat vaar bu baax a baax réew mi ay surprise yu mag a ngi fi bu kenn yàkkamti fëgg dana ne man te bu kenn gaawaree dafa am lu des nanu ko xaar. dafa ni maire ko déggee nii moom ba tey gëmul ni Macky Sall dem na à pour cent parce que nee nga gars yi dañoo teel a vaar te nee nga gars yi nañu def ndànk mu mel ni dem bi nii gëmugoo ni à 100 pour cent Macky bàyyi na dem na. non yi mën na bàyyi xam nga tey mën nga bàyyi teg fi lu gagné. mun nga yaakaar ne 2024 day am leneen xew kon 2024 jotagul ñu nanu xaar des na 7 mois 8 mois ay surprise yu doy waar a ngi fi nanu xaar dañoo teel a vaar. ndax yaakaar nga élection may ragal ñi ma vaar vaaraat seen bopp nañ dencaat seen i vidéo ñoom ñu ko dugal nañ jàll feneen. d' accord ndax yaakaar nga élection am parce que ñu ngi toog ba bañ a. 5 mois 7 mois. Mm-hmm. kenn amagul candidature sénégalais xamaguñ fa la ñuy. yaakaar non candidature yaa ngi man est ce que pourquoi pas man est ce ma nekk <laughs> ma du réew mi. yow ah mais bien sûr. surprise bu ne mun na am. nañ ma xaar nañ ma viser foofu nañ am vision xaar soxna Aïda Saliou. nga posé candidat. eh oui yàlla dama ci war a mën a bokk. ah bien sûr. <laughs> def naa ci réew mi dara am naa objet. Mhm. am naa ay programme <laughs> loolu de loolu de fii la xewee fii nañ ma xaar loolu surprise de fii la xewee nañ ma xaar. Mhm. damay posé wu candidature tout le moment mën nañ ma gis <laughs> su dul loolu kii falu man maa koy fal. foo ko teg ci baatin wala ci. baatin ak Zahir soxna Aida Saliou mooy wax de. Mhm. samay wax jortatee la dencal rek. ba mm-hmm. plus tard am njariñ borom xel yu sell yi laay waxal nag. Mm-hmm. waxuma ak benn xale. Mm-hmm. ku sa am dara laa wax. waxuma xelu kopp waxuma xelu cox. d'accord euh, mu mel ni président sax bi mu defee discours boobu ba pare après sénégalais yi ñaari fan yëpp gis nga leen ñu ngi jaabante pale mel ni sa président gars yi dañu doyrul ci moom. moo tax mu teel a wax day natt boppam. suukar la de ku ko bañ doon ndekki de. xam nga moom président bu amul vaar la. Mhm. mais am na président yoo xam bu ñu fal woon tey dañuy am ay vaar kon koo faral kooku waroo def vaar ndax sa président day am ay vaar. Ah. te man vaaru kàddu rek laa am. ah bon président moom ah, moom vaar la ma vaaru ndigg ma vaaru leneen <laughs> vaar moom ku koy génne waa Macky moom mën nañu ko génne vaar waaye keneen ku bu génneel soxna ay def vaar vaaral sa bopp ñu ay vaar ñoom ay kiloy vaar la ñu am. maman fii nag ñaari président ñoo fi nekk nag ah, xanaa yaay ñetteel bi mooy Sonko Macky Sall ak yow. waa mën na am mënoon naa am vaar su meeku. war a ma amoon vaar boo xam ne tey bu buñ ko tuddee ma joom mi wala samay doom duñ ko mën a déglu troisième mandat rek laa wax de waaye su muyu ma sama fenn te jógewu ma sama kër dem fenn <laughs> aca nañ dem ci leneen. <laughs> d'accord euh, ma ñëw ci ci ci Wally muy sa doom euh, ñu gis keroog mu génn def benn concert euh, muy si Kaolack bi. yàlla sunu borom dogal euh, àntuwul ci coobareem ndox mi ñenn ñu bari aussi tamit génn naan waaw Kaolack dëkk la boo xam ni kenn du fi def lii kenn du fi def lale en soo doom naka nga jàngatee loolu. waa ni ko bañ doon ndékki waaye bu demee mu taw xéewal gu mu fa doon wàccee la rek. mu mhm. daan xéewal nga xool waale ci bët rek daa dal xel da ngay kontaan quoi. Mhm. waali moo mel noonu li may li may saf rek la waali di saf nag wax dëgg yàlla nag mhm. li ci kubéer gi rek la biteel bii xëy mhm. faaw mu taw waali jour bi ma seet sama kër ba si parcelle taw na fii waali jaar yëpp mu tooyal ndox bari na de grand théâtre waali waaj na ko mu taw ba taa mu jàppaat ko waa léegi ndox mi ànd ci kii mooy ndox mi muy géej kii du naaj wi de kii ndox mi la ndax des fois doo doo xaw doo xaw a tiit ci moom par rapport ak coow yi non non non fi dëkk bi toll non non non tiit ci moom bi benn rek la mooy ndax euh, fi ma bëgg mu àgg ak fi ma bëgg mu mu yegg fa est-ce que man ak ñi ma ko bëgg ñu fekke ko ñoom dinañ ko fekkee. Mm-hmm. parce que dafa am ku waroon a fekkee neex neex yëpp te yàlla suñu borom ne loolu du am. muy Papa Thione. te moom kooku la gënoon a am yéene mu fekke yii. Mm-hmm. te li fi jëlee kooku ñu daf ñu fee bawut ba tax ñuy tiit tiitaange boobu rek laa am. Mm-hmm. te ni mu def ba wan ma yonent bi bëgg naa samay doom def noonu ba wan ko yonent bi. tiitaange yooyu rek laa am mais pour loolu ça va bien passer ah. waaw. Mm-hmm. naka nga jàngatee sorti Ameth Thiou bi démb. dafa génn. Ameth Thiou waaw seetaanuma ko. <laughs> seetaanuma ko fan yi dama gëj seetaan internet nag yàlla seede na ni internet bi gëj naa koo seetaan seeta seetaan trois jours a ngi ni seetaanuma internet. mais seetaan nga concert Kaolack bi. fan yii dama xat waaw concert Kaolack waale buy tëgg du ma nelaw. bu Louga bi seetaan bu Louga seetaan naa ko bu Passé seetaan naa ko bu Pikine seetaan naa ko bu Kër Massar seetaan naa ko lu waali def damay jaay samay nelaw toog di ko seetaan di ko ñaanal. mu wàcc ak jàmm ñibbeeg jàmm am jàmm. d' accord bu Louga bi ñu gis Mbaye si Ndiaye euh, mbay si Ndiaye jël micro bi waxee àll ni gars yi nañ bàyyi di mbuboo papay papay waali naan maay sama pap maay papaam comme si ku koy tuutal kaddu yooyu Mbaye si yëkkati. non loolu waxoon naa ko man mii di wax ak waxoon naa ko nee woon naa waali doom da koy jur mu dem ba mu yàgg dootoo xam ndax yaa ko jur wala moo la jur day am ci njaboot njaboot dafa am doom joo xam ni. li may wax nag déggin la laaj quoi man bëgguma nekk ci ay passé yooyu yooyu si Sy lu mu wax dëgg la ah faramaari ni lu ñu wax dëgg la lu ñuy bëgg a wax dëgg la lu ñuy baaj wax noonu la ni ñuy tëggee di ko wayee noonu la ñuy waxee lu ñu wax dëgg la <laughs> parce que bu waalee way waalee rafet waalee mën a way rek laa bëgg a moo jantal moo mën a sañse lu waay wax ci waali rek tam bokk ci biir faramaareen te nga ànd ak moom te wax ko rek eh c'est bien ah. wax na dëgg waali du doomu ku jóg rek ni sama dooma mbott mu jóg ne sama dooma si ndax su jóg ne sama dooma na doom yoo xam ne duñ juddoo ci ay si ndax ak i mbóot de ak i malaajon waxal. d'accord ma ñëw ci tamit euh, ba tey damay des ci waal yi euh, yi nga xam ne des fois yenn sénégalais ñu ngi koy wax di ko tooñ naan di ko di ko accuser ay borom ñaari tur yi kàddu yooyu des fois nga koy déglu en yaayam. ku bàyyiwul Aïda Saliou di nga bàyyi waali ku bàyyiwul Papa Thione mii baayam di nga ko ba. Mhm. ku bàyyiwul Youssou Ndour di nga ko ba. ku bàyyiwul sëñ mu taxaa di nga ko ba fii am na ku ku jàmbaar buy dem ndekk fi def fi lu ñëpp di tudd te waxuñu la amuñu luñ teg ci sa digg ginnaaw gi ba boo ko laalee mu mel ni yoo boo rey am na fii ci réew mi. wax ma kuñ fi ba nga président Macky Sall tous les notions la ñu bàyyiwut xaw ma ku ne ba kuñ fi ba war ngaa xulaat sa bopp ku nu xëy at mi ba at mi dellu si waxuñ ci yow benn polémique tegaluñ la fi dara àdduna bi yëpp waxtaane wuñ la seetaanuñ la xoolaatal sa bopp wala nga wuti ay ñaan xamal ne yow ñaan dalu la. Mm-hmm. d'accord am na solo ah. ma ñëw nag fi may jeexalee muy actualité boo xam ni euh, dafa dal sunu benn frère mu di Pawlish Mbaye ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla na sëy barke. xale bu baax waaye. ndeysaan maman ah, coow Pawlish bi. coow jàmm ak salaam la. Hmm. sëy bi rek moo neex. dañu tiit nag da leen a berte Pablis daa am jabar ju baax waay. Hmm, alsaan ak seeni. doomu soxna la takk. kooku hmm. yaayam soxna la Baye Abdoulaye baayam. Hmm, ndeysaan. ko koy Sénégal ko koy àdduna. kooku baayam moo ni woon maamam moo ni woon moo moom ñu weex ñi moo moom ñu ñuul ñi moo moom démb moo moom tey. ah kooku la takk faaw coow li bari ndox mee bari <laughs> géej gi la. kaddu yi way juru Pawlish yëkkati. waaw daa des rek baay bi moo des rek xam nga baay yoo xam dañuy des tuuti. des comme am na yaay yoo xam dañuy des tuuti. am na yaay yoo xam ne bu sa doom doxi jee ba guddi indi la hamburger da ngay lekk rek nelaw doo xool fu mu jóge noonu la amee ci papa yoo xam ni duñ jënd duñ am na papa yoo xam ne duñu seeni doom duñu dugal école yaa ngi may dégg duñ la génneel muurum koor duñ la génneel asaka boo tekkee am dara ñu ne maay sa baay ba tey baay la. Mm-hmm. bàyyi la de nu mu mënti mel rek bàyyi la su dee moo ko jur baayam la na publish tarbiwu baayam topp baayam waaye baay bi amul woon lu muy wax ci internet ndax publish jàpp nañ ko fi jox ko convocation góor ni moom papa ni moom jox doomam convocation te génnul. Pablis jiñ nañ ko fi dinaa la rey ci ñetti fan sëriñ menacé na ko fi doomam te génnul ne lu tax kooku di wax loolu sama doom kon bu mu bàyyi ba Pablis am bisu jàmm ak salaam muy génnaan comprendre lool de Sénégal dafa évoluer da ngay topp sa doom taxawu ko mat ko baay gauche et droite taxawu ko comme baay samp ci kanamam nekk garabu ker bis bu nekk kuy baayam rek nga ni président moom it suñ ko ne kuy sa baay rek mu ne laa waaye dafa benn démarche da papa bis ñëw rek nga doxal na reconnaître ma papa. amul jamais de la vie. Mhm. après day des tuuti dañ koy arrangé rek mu doog laa wuy ji ah. mhm. ndax jàpp nga ni kàddu yi tamit waroon na ko teg ci penc mi warul woon a. moom laa la wax penc mee tax joxuma ko benn dëgg. Mhm. joxuma ko benn dëgg. ndax diggante baay doom ba koy reyal xarum tudd kenn yëgut man mi sama xarum tudd daa rëcc. jour bi ñu may ngénte la bi euh, avion bi daanu imaam bi teg ma daw. man jour bi ñu may la imaam bi dégg naa imaam bi dafa ma dem ba di ma liqaam avion bi ne réel daanu imaam bi teg ma daw sama xar mi rëcc dem. <laughs> man mii toog. ah man mii toog amaan naa sama papa tuuti problème. Mhm. ndax expliqué ma ba léegi ndax xar mi ray na ko wala utiwaat na beneen wala après la ma tudd wala après nan la def ba tudd ma man mii toog. <laughs> d'accord te sama papa dem na boo ko gisatee maa ko fekk ci. voilà comme yooyu la rek. Mhm. mais lan moo ci taxawaayu Pawlish en tant que en tant taxawaayu Pawlish du dara lu du woowaat papaam ni ko mere naa la trop parce que waroo woon a doxee nii waaye papa maa ngi lay jéggalu bu dee loolu naqari na la ànd jabaram seeti papaam. mais est que waroon naa tamit seetaan papa ji di agsi fii comme papa ji li mu wax mosu may dërëm xamuñu fu mu dëkk toppatoo wu ñu faale mais est-ce que papaam reconnaître na ko au ba au fin dama la ni Pablis am na fi ñeenti problème yoo xam ne du jabar te gisuma papaam mhm. jàpp nañ fi Pablis woo nañ fi Pablis convocation police gisuma papay Pablis ñu dikk fi Pablis di nga dee ci ñetti fan te yooyu gën a grave te papaam néewul sama doom ji ku ko a rey dinaa la rey mais am na yenn euh, euh, euh, acte de présence yoo xam ne xew na fi lu bari man gisuma papa. ñu gis sax ci wax ji mu ngi attaqué ki nga xamante ni mooy Imaam Makhtar muy Jamra moom. Imaam Makhtar ku jóg attaqué ko man ku ma attaqué dootoo ma attaqué ti ku wala les vi wala les engagements dootoo Imaam daa neex a engagé. daa neex a lool ndax dafa tuuti ba pare waxam yi dafa tuuti daa war di wax wax yu rëy ndax ñu kii ko. Mhm. loo bëgg a xamaan. Mhm, d'accord am na solo man ku ma engagé rek maa fekk may nelaw. wala nga teg vidéo bu passé du ma ci wax. Mhm. mais ba ma engagé ci loo mënut a engagé sa kër laa lay fekk. Mhm. waaw gis naa benn waay bu manqué nag bu nekk wal fajari naan moom foofu ku fa seetloo maa ngi seet bu baax grand. var bien merci beaucoup yow si ñoo lay luyee di la fay ngay wax. <laughs> yow dañ laa fay ki la fay woo na ba ni ma moo la fay pour nga wax ci plateau bi wal fajari dañ leen a tëjoon da ngay doog a tëj xam naa da merci beaucoup. Hmm? kon gars yi dañu doon attaqué noonu ci vaar bi. non dañu doon attaqué di def seen plateau yi amoon nga loo leen mënoon a wax man mënoon ngeen maa teg rek bañ a wax ci man ndax man yéen li jëntiwu ma leen mbaa xam nga leen barke Seydouna Muhammad. billaahi wallaahi tallaahi man jànguma xàmmewu ma merci ak rien man pour man ñëpp vient lañ bind commentaire. Mhm. barke yonent bi xàmmewu ma loolu man du ma liir yooyu. Mhm. internet dama siy gëj su ma defee vidéo bu ñu ma ne vidéo bi génn ma leen lu ma ci wax. man taalibe Serigne Touba la temps bi di ñaam maa ngi koy social di fexe réew mi am jàmm ak jullitu yàlla yi nan la ñuy def pour biir yi am dara wala ma dem nduggi ñëw teg ñu togg ko séddale partagé teg ataaya teg café Touba man ci yooyu laay dox. Mhm. nekkuma ci temps yi ñuy temps. Mhm. man nag lu ñu ma wax baax na mais sama doom koo laal ma jóg. d'accord acca ak loo bëgg a waxaat. am na solo ma ñëw ma ñëw waaw ci wàllu wàllu ñaan bi. waaw seet dama ko judduwaale nee naa damaa judd woon à l'âge de huit ans laa commencé seet. Mhm. ñaari kuy ya ma jur. côté yaay coté papa. su ma ko waxee àdduna bi yëpp xam ne man kàngam laa ñëwuma oto bi wàccewu ma fi madame Gassé laa juddoo Pikine tali bu mag laa yaroo avion bi jour bi mu ne réel daana 80 ci laa juddu dee ngeen. waaw imam bi teg ma daw ci poro période boobu laa bokk événement boobu laa bokk. <laughs> d'accord pour ngeen xam. d'accord seet nag man dama koy def. léegi nag li may publicité seet bareetul parce que wax dëgg yàlla nag. àdduna bi yëpp nag ñi nga xam ne am nañu maanaa am personalité xale yu ndaw yi man lañu bëgg man lañu choisir. Mhm. maa yër pettaaw yi te du ko mayee duma ko def gratuite damay fayeeku seet. oto yi ñu gis ma di ko jaay di ko def ci mbënd mi ci seet gi la jóge social bi ñu dégg àdduna bi di ko riiral man la bu kenn jaaxle cinq mois. seet bi gisagoo ci candidature Ousmane Sonko. seet bi. <laughs> ci loo leen ne <laughs> yéen ngi may xool. <laughs> Ah, awa ay bu bagi pare ci réew meeg ba fenn. waaw. man candidature laa sama bopp laa tal moom maa ngi moom ñoo bokk ëtt bi. mais patriote yi patriote yi ñëw fi mu doon nii comme patriote tamit dañu lay topp. patriote bi man la ñuy topp man ñoom laay topp ndax man liñ ma li ñu wax man ma li ma leen xamal yéen patriote yi xam nga man ñoom laay jaay sama pomade yi nag ak sama bouteille yi patriote yi. samay client lañ ma du ma bëgg wax ci ñoom dara mais Ousmane Sonko manqué ci ci ci yi beneen affaire la ndax dëkk bi day wéet. Mhm. dëkk bi day wéet. Mhm. mais man ak moom ñu jàkkaarloo ci tali bi. muy mitin may mitin <laughs> non loolu beneen affaire la. ndeysaan waaj leen soxna Aïda Sall ngeen di jàkkaarloo ci rii bi de. dama leen di gañe ngeen di gañe. Macky Sall yéen taxu leen mu génn man maa tax mu génn. Mhm. allez ciao. d' accord am na solo mu ngi noonu ah mu nekkoon sunu yaay ji baax wax dëgg yàlla. ku disponible waaw di borom ànd la. waaw sama xarit bi. moom sama xarit la sama mbokk la. sa goro sama xarit la waaw sa <laughs> am Ahmed Cissé boo bëggee ma may la juróom ci kër gi nag kër gi dafa bari ay jànq ak ay catégorie première âge deuxième âge quatrième âge yow boo ci bëgg ma may la. <laughs> waaw yow boo bëgg ma may la sama xarit bi merci beaucoup. xam nga nit ki nga waxal sa nawle lu baax wàññiwul dara. dëgg la waaw ndax tey mënoon ngeen dem introsé ko gis naa ngeen laaj ko ci soxna Aïda Saliou. Mhm. mu ne du ma ci wax ndax da fekk na boobu sax billaay wallaay tallaay loolu amul mais moom bëgg na rek euh, bañ a wax ci man. Mhm. yàlla bu waxee ci man day doon erreur ci moom mhm. ndax xëy na fond de cœur moom xamuma mhm. man xawma ko mais xamante nañ ci jàmm ndax mi ngi feeñ maa ngi feeñ internet am na ay vues am naa ay vues. Mhm. kon mu yàqa wala mu wax ci man lu may tëlimal wala lu may gàqal taxul mu doxle taxul ma doxle mais liggéey bi dafa yaatu aar bi dafa yaatu ku ne mën ngaa béy sa mhm. xool leen fële vogue ni muy mel te ñëppay tëgg te du tee day fees lan <laughs> luy problème bi ah. d' accord mu ngi noonu ah. numéro téléphone yaa noonu di daw ci service commercial bi boo ko wootee rek incha allahu rabbi di nga ci jot mu nekk sunu yaay ju baax a yéen a ko moom site internet bu bëgg a ñëw sax naay da ubbil na la waaw dañuy waxtaan lu ma bëgga laaj laaj ma ko ah, man loo ma laaj ma tontu laa mais xam naa ne fii ak weer bii de dëkk bi dina mel ni doomu taal dinañ ko dëbb ci jàmm ba mu saf <laughs> meeting yi ak élection yi ak ñi bëgg a posé wu candidature yëpp te posé gunu wanee gunu su seen i photo da ngeen di jaay pànk rek di jaay mën a <laughs> réew mi dina mel ni ñambaanu màdd <laughs> mu ngi noonu jërë ngeen